lu jar a ñaan yàlla la. ñu bàyyi itam. ñu bàyyi itam. nit wax trente minutes. nit wax trente minutes. ñu dagg ci trente secondes. duggal ah, ah. ku fekkeewul wax. nee ku fekkeewul wax. ñu dagg wax. ñu dagg wax. xamoo la jiitu. xamoo la jiitu. xamoo la ci topp xamoo la ca topp. baat baat bala ci intéresse rek. baat bala ci intéresse rek. ngay jël ngay jël utiliser ko utiliser ko. yàlla xam na ni. yàlla noonu. kon ñiy dagg vidéo yi. suñu mënul dugal lépp. suñu mënul dugal lépp. nañu denc seen téléphone. gor yi ñuy weer ci mbedd. mais gor yi ñuy ci mbedd mi. te ñëpp ay goro leen jur. ay goro leen jur. gën sa morom. kenn gënul sa morom. ku dul ki la raw ci yàlla. kon nañu bàyyante xel.